alhamdulilahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursaliin sayyidina wa xabibina wa shafiicina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala aalihi wa saxbihi wa sallama tasliima. ayuha alxaflul mubaarak asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu. di leen ziyaara di leen balu xaq di leen ko bal di jiital ci nuyoo beeg ziyaar bi a cheikh cheikh Ahmed Tidiane Sy capitaine ñu ngi koy nuyu di nuyu itam a sayid Mouhamad Moustapha Sy xafizahu llahu wa raahu wa abqaahu zuxran lil insaaniya ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di ñaan yàlla yàlla yàlla mëtal seen yéene ci njaboot gi di nuyu ñi fépp di itam sama magu daara yi ma daara yi ma bokkal jataay bi muy sëriñ Babacar ak imam Sàmba ñu ngi leen di nuyu di ziyaar ñépp ñaan yàlla yàlla nu yàlla barkeelal mu mel ni dina ñëw ci benn tomb alquran nuzulan wa ñu ne alquran daal mooy téere yàlla bi nga xamante ni moom la yàlla wàcce pour defar nit moom la yàlla wàcce pour defar maas yi moo tax mu am place bu kawe ci bakkanu ñi gëm ñi gëm yàlla ñépp alquran mooy seen téere ndax mooy kalaamu rabbul alamin mooy kàddu gi nga xamante ni sunu borooma àddu moo tax ñu jàpp ni wàccug al wàccug alquran ci àdduna bi dafa nekk point bu am solo nuqta taxawul la ndax alquran mooy téere bi nga xamante ni moo mujjee wàcc kon kàddu sunu borom bi mujjee wàcc ci kaw suuf muy alquran muy impact boobu la am mu ne kon nag su nekkee téere alquran loolu la am est-ce que li taxoon yàlla di ko yónni di ko wàccee ndax ñu ngi koy yëg ci nit ñi ñu ngi koy yëg ci mbooloo yi ñu ngi koy yëg ku nekk ci sa dundin pour tontu laaj yu mel noonu mu ji ma xamle ma xamle lan mooy alquran daañu ko def lugatan wastilaaxan daañu jéem a taxaw ci nuzul ak tanazzul mal farq baynahuma dañu ñëw itam ci maraaxil nuzulil quraan daañu ko tëje ci jamul quraan wa anwaaw su nekkee li jëm ci wàllu définition concept bi baatu alquraan ci luga baat la comme baat yépp yenn saa yi dañ ciy werante am na ñu jàpp ni imma an yakuna jaamidan aw mustaqan waaye imaam Shafii nee na jële na ci Ismaayil ibnu Qustantin muy wax ni mu ni alquran nekkul feex la boo xamante ni ma ismu zaat la comme ni injil tuddee injil mu ni alquran noonu la nekk ismu zaat lil quraanil karim kon lam yakun mustaqan am ñu ni sax alquran mustaq la mais dañ koy istiqaaq ci fi'l qarana ki wax loolu nag ñu mel ni zajjaaj wax nañu loolu mu ni ndax mën nañoo wax ni qarana foofu lañu jëlee baatu alquran kon danoo jàpp ni nuun bi asliya la si muy xaranta shay bi shay ida damamta ilay am ñu jàpp ni moom sax soo demee ci farra ci al itqaan fi ulumi al quran mu ni mushtaq la waaye ñoom ci ishtiqaaq ci qaraain bii firi ndendale ndax aaya yi yenn yi dañoo niroog yeneen yi waaye beneen groupe bi bi dañoo jàpp ni fi'l bi mustaq min fi'l qaraa te hamz bi ñu wax loolu nag jàpp nañ ci imaam laxyaani nee na masdar la min fi'li qaraa bu ñu wës ni ci fi'l fulaan comme gufraan muy firi talaa bi nekk jàng am keneen ku wax ni alquran daal mahmouz la waaye ñoo ngi ko tëggee imam farra moo ko wax moo ngi ko ñoo tëggee ci alqaru bi firi aljamaa qara alma fi isa jamaa waaye ak lu ñu ci mën a wax suñ koy tarjeex dañuy wax ni li laxyaani wax ak li zëjjaaj wax moo gën a not mooy alquran ñu ngi ko tëggee ci fial qaraa bii ala wasni fulaan bii ala wasni gufraan bii firi jàng su nekkee ci istilaax nag mooy boroom xam-xam yi nan lañ ko tëggee am na ay taarif yu bari waaye bi ci gën a waaye bi ci gën a gàtt gën cee mëttal lu am solo mooy wax bi ñu wax ni alquran kalaamullahi almunazzal ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam almutaabad bi tilaawati mooy téere bi nga xamante ni mooy kàddu yàlla bi yàlla wàcc ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam te jàngin bi nekk lu ñuy jaamoo yàlla moom rek mooy texte boo xamante ni soo ko jàngee jëmmi jàng bi rekk yaa ngi jaamu yàlla kon sunu jéemee xam alquran ci fu nu ko tëggee ak ni ko boroom xam-xam yi xamle am na ñu baatu nuzul bi jóge ci inzal ak baatu tanazul bi jóge ci tanzil ñu ni lan mooy farq baynahuma yenn saa yi aaya ñëw ñu tëgg ko ci siiratu nuzul comme chahru ramadan alladi unzila fihi alquran unzila min nazala nuzul yenn saa yi ñu tëggee ko ci inna anzalnaahu fi laylatil qadr comme ni ñu gisee itam yeneen aaya yi ko ci tanzil bi nga xamante ni màdd bi mooy nazzala bi tashdidi zey muy nazzala alayka alkitaab bi xaq mu li ma bayn kon yàlla la wàcce téere bi téere bi di dëggal téere yi nga xamante ni ñoo leen jiitu waaye kon suñu xoolee ñaari jàngin yooyu nuzul ak tanzil seen farq nuzul mooy téere bi wàcc bi mu wàcc jumlatan muy globalement mu ñu tege ko ci nuzul wala inzal wala inna anzalna su nekkee tanzil ak tanazzul mooy nuzuluhu mutafarriqa fi muddatin min az-zaman abra al umr an mooy nekk gi mu nekk muy wàcc ndànk-ndànk saloo dund sayduna muhammad sallallahu alayhi wa kon nag baatu nuzuul ci inzaal mooy wàcc al